Euh, waa jàmb ji info nag mbokk yi nekk en repérage en direct ci ligne bi ak oustaz Assane Diouf euh, bu Walfajri euh, ginnaaw bañ ko jaale ki nga xam ne rek muy ancien ministre Bamba Ndiaye dañ koy bàyyi ci ligne bi rek di ko jaale d'abord oustaz ñoo ngi lay wax asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah taala barakatu maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem waa jàmm ji FM yàlla na jàmm yàgg ci réew mi ak ci bitim réew ak adduna bi. amin yaa rabbal alamin euh, oustaz mu mel ni rek tey euh, xew-xew bi benn la rek euh, muy ki nga xam ni ancien ministre Bamba Ndiaye ñu gisoon relation bi nga xam ne amoon na ko wax dëgg yàlla ak kër gi nga xamante ni moo di wal fajri yu ci baree bare daañu leen ko gis dem yàlla ak Sidi ñoom it mu taxaw di fa ñëw di taxaw taxawaay bu am solo yan ñu war a mën a ci ancien ministre Bamba. waaw Bamba Ndiaye euh, euh, facette yi ñu mën a wax ci moom bari na te benn bu ci nekk rek doyoon na. Mhm. pour nit war koo mën a delloo njukkal tey ci biir Sénégal. Mhm. Bamba Ndiaye mën nga wax ne journaliste la woon. Mhm. ndax xam ngeen ne journal boobu de le messager moo ko jiite woon. te euh, yóbbu na ko fu sori doon def service bu am solo ci côté boobu ci wàllu journal. Bamba nitu social la woon xam ngeen ONG. Mhm. Euh, bi nga xam ne. Mhm. Euh, ataamanal baxit moo ko indi woon nekkoon directeur bi fii ci Sénégal. Mhm. Bamba Ndiaye travaillé na ak ñoom rek na ay problème yu bari problème yoo xam ne xeex na ak ñàkk ñu yaatu yaatu ci biir Sénégal kon mën nañu wax ni nitu social la woon. Bamba Ndiaye écrivain la woon. bind na lu baree baree bari euh, mën nañu wax ne itam mooy mën nañu joxe exemple ci li nga xam ne bind na ko téere boobu ñu tuddee Adwa. ala ak Sénégal. mu nekk téere boo xam ne dafa portale Sénégal ci wàllu positionnement géographique waaye portale ko ci wàllu histoire portale ko ci wàllu culture ak civilisation. Bamba Ndiaye mën nga wax ne politicien la woon xam nga ne nekkoon na ci parti boobu du PDS mm-hmm. nekkoon itam ak euh, euh, kii di Malick Gakou nekkoon ak Pape Diop ba ci ki fi nekk di Macky Sall Bamba Ndiaye nekkoon na ak moom yooyu yëpp pour prouver ak wane ne euh, nekk nitu daara wala jàng arab warul tax ñu yaakaar ne rek sa mbir yëpp mu ngi tàmbali ci allahu akbar ak asalaamaaleykum mm-hmm. wane na ne euh, nit ki war na mën a servir jamonoom ndax l'islam ci boppam projet de société la bàmba itam wootekat la woon jëmale ci diine l'islam xam nga ne membre la woon bu actif ci euh, lii di jamaatu ibadu rahman mm-hmm. am na fa euh, ay empreintes yoo xam ne dafay continuer dafa wéy. Bamba Ndiaye itam euh, nit ñi koo xam ne service am yemul woon rek ci Sénégal. Mm-hmm. ndax boo demee ca Maroc liggéey na fa lu ci wàllu journalisme ab biir boo xam ne liggéey na fa ci wàllu wàllu journalisme foofu ca Maroc. Mm-hmm. naka noonu itam participer na ci ay congrès international yoo xam ne. Euh, mën naa ci jël ay seede sax ne fekk nañu bitim réew. Mm-hmm. te nit nit yu mel noonu moo ko yóbbu woon. kon personne mm, multidimensionnelle la boo xam ne yoon la ni ci bépp doomu Sénégal te ñu delloo ko macha allah euh, oustaz xam naa duñ la téye ci ligne bi xanaa sama laaj bu euh, mujj rek bi ma lay laaj euh, tey gis nañ tey fi réew mi toll lu demee ni tey gis nga ko muy ancien ministre tey ku ci demee ni Bamba Ndiaye nga gis macha allah ni xam-xamam ak dayoom bi nga xamee amoon na ko ci ci réew mi mu mel ni ñu ngi commencé perdre xamante tamit indi tax ci relation diggante dem ci yàlla El Hadj Sidi Lamine mu mel ni ñoom ñaar dañoo meloon ne dañoo bokkoon benn combat bi ñuy mënee lan nga ñu mën a indil foofu. dañ bokkoon benn combat bu ñu mënee ndax génération boobu génération résistance la woon hmm. période bi ñu toll woon itam période la boo xam ne fekk Sénégal jóge na ci colonisation ñëw ci indépendance indépendance boobu ñu war ko jëmmal ci côté yëpp hmm. euh, moo ko Sidi Lamine wax na dëgg ñoom ñoo bokkoon di jàng euh, ñoo bokkoon itam combat ci jamono yooyu euh, nga xam ne même bi ñuy bi ñu defee seen congrès boobu nga xam ne Sidi Lamine ñes bare na lu mu koy nettali ba ñu ñu tere leen génn ci réew mi ñu affecté leen yóbbu leen ci région yi kunkande yooyu yëpp mm-hmm. euh, dafay wane ne ñoom ñaar ñoo bokkoon combat di ko mëne mm-hmm. waaye itam euh, da ngay gis si mu Niass ni mu marqué jamonoom ba taxawal fi loo xam ne dafay continuer ba faw Bamba Ndiaye itam euh, service yi mu def ci secteur yi ma wax mm-hmm. dina continuer di nekk royukaay génération montante bi nga xam ne soxla nañu repère incha euh, jërëjëf euh, oustaz Assane mu mel ni jàmm ji info euh, ñoo ngi lay jaalewaat ki nga xam ne rek muy ancien ministre Bamba Ndiaye ñoo ngi lay jaajëfal xam nañu temps bi bëriwul tamit di rafet lu baax disponibilité bi nga xam ne yombal nga ñëw. waaw jërëjëf ñu lay sant baax a baax di sant mboolem waa jàmm yi di ñaan yàlla lu li fi mel yàlla na ci géej. amiin yaa rabbi ñun ñëpp wa inna ilayhi raji'un ndax yàlla dafa xalaqal mawta wal xayaata wax dafa bind. Hmm. te ba pare war a dund dund kon kullu nafsin zaa'iqatul mawti la rek waaye yàlla na fekk ñu nekk ci toolu yàlla te nekkin rafet bu boobaa euh, euh, loolu ndam lay doon El Hadj Ibrahima Faw daf daan wax ni du mhm. nit bu génn àdduna moo jar a feetal ndax euh, ne daal nee na li ñuy def ci ngénte yi loolu la ñu def ci dëj yi mhm. ndax ki nga xam ne dem na ba wàcc liggéey mu wóor ñu ne gëmoon na yàlla doon jaamu yàlla kooku moo jar a seetal waaye ki nga xam ne mu ngi door a ñëw sax dañu war a tiit xamuñu naan lay mel ci mm-hmm. ëllëg kon euh, ñu jàppee ko noonu rek mu dal di olof insha allah ñu ne waxandoo ñëpp ne inna allahi wa inna ilayhi rajiun euh, jërëjëf mbokk yi santaat nañ ko bu baax di oustaz Assane euh, Diouf la ñëpp xam ko taxawaay itam ci réew mi na fee nga xamante ni di naataango fële nga xamante mu di télévision groupe Walfadjri ñu di ko santaat bu baax di ko xamal rek jàmm ji info nga koy jaajëfal jërëjëf ñu koy sant di koy gërëm jërëjëf ji info point net informer, et divertir dans la